Touba quincaillerie général mu ngi fii ci cité Kër Damel bu dee da ngeen yittewoo lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi ñëw leen fii Touba quincaillerie générale mën ngeen leena a seeti tamit ca 84 ak ca 65 rue Ngalandou Diouf Touba quincaillerie générale mooy ànd ak yéen ci waxtaanu ajjuma yi am fii ci Touba Aliya mbokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di baal xaq tey balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jéggal dellu di ndokkeel jullit yépp ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañu nekk yàlla na nu yàlla may wér ak tal ba mën koo àggale te luñ ca def mu nangu ko daanaka nag bu ñu ko seetee li tee weer wi xaaj bariwut koo xam ne nag gan goo doon séentu la mu agsi fan yi mu fi waroon a def bu dee ñetti fan la benn bis ba ak genn wàll di bëgg a jàll taxawaat xool suñu diggante ak moom daf ciy baax nim ciy baaxe mooy ana luñ ko defalagun ana luñ defagun ci gan gi ak ana lu muy dem di ñu ko yóbbaaleel di ñu ko xoole ba ba muy dellusiwaat ak bu demee ana lu ñuy nettalil ñi ngi ci fukki fan yi ci digg bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon fukki fan yii nga xam ne ci lañu ñu nekk yi ci digg weer wi fukki fan la yoo xam ne am ci njéggalu suñu borom yomb na lool ab jullit yàlla nañu ko yàlla jàppandalal euh, fukki fan yu digg bi ci la xew-xew bu mag amee woon boo xam ne euh, la doon dox jëm sow dafa waññiku jëm penku loolu mooy lan mooy xew-xew am na ci boo xam ne ñu bari nee nañ fukki fan la ak juróom-ñaar kuréel bu tuuti bu néew ci ab limub nit ak néewloo ci limub ay jumtuwaay yuñ mën a jàmmarloo ak seen moroom waaye wéeru ci yàlla rekk def ko wéttal wéeru ci yàlla def ko dendandoo ci waxin ba soppi doxiinu jamono not ñoo xam ne kenn mësu a mën a not ndax bari woon nañ ci ab lim te saa bu ñuy dem ci bis bu ni mel dañ koy waaj waajtaay woo xam ne kuñ dajeel ku dul nañ dajeeloon rek mën ngaa yox yoxi wala nga deng deng kon weer la woo xam ne yàlla geesu na ci jullit yi lu ëpp wenn yoon ndax fatxu makka it ci biir weeru koor la amee woon ci ñaar fukki fan ak benn ñii ne ñaar fukki fan ak ñaar loolu nag liñ ci jànge mooy du weeru yàccaaral ne yàcc rek bañ a faste xànc ak moroom ma ci bëccëg bi su guddee nga def ko sa bëccëg loo waroon def ci bëccëg bi ci xeetu lekk ak naan ak waxtaan nga def ko ci guddi gi bu guddi gu jeexee nga nelaw bëccëg bi loolu taxutoon a jóg weeru koor weeru koor wi yenent bi nga xam ne moom la yàlla wax ne ko toppatuma la dara donte mus sa def lu ko yàlla di toppe waaye ñun lañ jubloo waxal te duutuma la topp dara taxutoon mu ne alhamdulillah taxutoon mu ne baasin yàlla li ma doon wut am naa ko déedéet bu bëccëgu koor masaan ñëw koor masaan jot ci lu ma tut fukki at ak ñaar ba ñett yim woor ci diggante boobu la nekk saa bu bëccëgub koor masaan ñëw dangay xam ne tey bokkut ak démb day gën a tabe yitte ko waaye wax mu faj ko lu gone néew néew ay at mën nga koo yendal fi barab ndax day wàcc ba ci suuf te seydina muusa waxoon na ibrahima ak muusa ñoom ñépp waxoon nañ seenu nit ne in nahnu illa basharun mislukum walakin allaha yamunnu ala man yashaau min ibadi ay nit lañ ni yéen waaye nag léeg-léeg dañuy wuute ak yéen diggante bu gàtt te diggante ba wuute ga du doon ci diggante boobu rek waaye yàlla lu mu waajaloon la bu yàgg a yàgg mooy wax yi leen di dikkal yàlla nee na mu bees peq waaye bu ñu ci jógee dañuy daal di nekk nit ni ñun lu ñuy santaane ñoo cee jiitu kon ku tabe woon la ci bëccëgu weeru ko kon bokk yi bëccëgu weeru ko du bëccëg boo xam ne dañ ko war a tëju rek ku ñëw ngir yaakaar bu ñëwee fekk ñu ne daa tëju seen yaakaar tas ñu delluwaat déedéet waaye weer la woo xam ne it ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawu ci noppalu ci bu ñu ne ko diw daa wéradi walla diw daa amu xew bëccëgu weeru koor dawu ko tee jóg di dem di seetu ku wéradi walla di jàlla ji kon du weer woo xam ne dañ naan nañ bàyyi rekk ba wori ndax bëccëg bi lii ak laa déedéet waaye weeru jàng alxuraan la ak jàngalante alxuraan am na ñoo xam ne dañuy yëkkati ay wax di ko teg ci ñi nga xam ne dañuy firi alxuraan ci koor gi waaye bokk yi alxuraan suñ ko waxtaanewul ci koor gi waxtu wuñ koy waxtaane ab laaj la waaye ku ci daa bari ay tudd yàlla la tudd yàlla nag bu dee ci réew mi mag ñii fi nekk yombal nañu ko lool am na ñoo xam ne seeni téere ku ci mel ne Cheikhul Xadim salawaatu ala nabi ak i adkaar ak i istigfaar mi ngi ne gàññi ci mbindam mi ku noppi ci alxuraan ji rek mën na caa dalalo ji yàlla na yàlla nangu lépp gannaaw weeru njàmbaar la nag ba yonent bi daana ci def ci ay jaamu yàlla yoo xam ne daawu ko def ci weeru baraxlu te nit ñi di ci seen bët wala du ko def ci weeru koor yi te nit ñi di ci seen bët kon weeru koor am na jagleeg boppam goo xam ne moom rek moo ko am yàlla nañu ko yàlla déggloo la ca xas ba jàll nag jàll na te du ñëwaat lu dul déwén yàlla nañ bokk ci ña koy fekk ñu fexe ba li ci jàllagun ku nekk mën naa xam boppam nu mu ko jàllalee ba xam da ko doon nelaw mu xam ne weer wi du weeru nelaw daf ko daan tëju rek mu xam ne weer wi du weeru tëju kese kese waaye weeru faj ay soxla la ak doxi ay soxla yi sharia jàppe ay soxla yi gën a ñor rawatina seeti ku wéradi jaale ji dem ca armelia ak fekk ji jataay yi nga xam ne dañu koy woote te yàlla rekk tax waaye bokk yi weer wi ci fan yi dafa daje ak ñaari xew-xew yu am solo yoo xam ne it jullit yi war nañ cee xam fu ñu teg seen tànk euh, démb rek euh, waxukaay yépp ñu ngi yandu ci di waxtaan ci Euh, ñeent fukki at yu jàll ci ginnaaw yoo xam ne dañu caa rayoon ay gone tuddee ko bis bi ñu jagleel gone yi Afrique yi bokk yi gone yooyee waris naa laaj ña ca faccoon ana fuñ mujj ak it ña leen rayoon ana nuñ leen mujj def mbaadu ña leen rayoon tubaab yañ doon rek moo tax lépp doxe fa tàbbi géej mbaadu ñu rayoon dañuy ay nit ñuul kese kese bokk yi fàttaliku bi naqar bi ci gën a am mooy dañuy wan nit xale bu Afrique bi ne ko saa su nekk tubaab bi moo la féete kaw lañ defoon ba tax tubaab ba def na mu defoon it ku ko fi jéem a defaat tubaab bi mën na ko nam ko mën tey tey la waa lu gën a aay waaye bokk yi am na geneen gone goo xam ne moom itam ci fan yii la rajo yi it waroon nañ cee def waxtaan yu xumb ak yu yaatu yi ñu def ci gone yooyu ñu rayoon ëpp na ñeent fukki at boobaak léegi mën na ko 1976 ci Afrique du Sud gone googu aw turam rek am na lu mu jaxaloo xam ne jar na jullit yi seen xol sedd Omar Siddiq Matin la tudd gone googu ci ay bis bi rek moo dugg ci foo xam ne ay góor jigéen dafa nag faat ca ñoom lu jege juróom fukki nit ñu reyaale ko ñu reyaale ko moom itam waaye jar na ko nag ndax bokk yi gudd fan amul njariñ maanaam at yu bari rek at yu bari li ko nit waroon a doyee mooy def rek def fi rek la mu fa war a def adduna bépp rawatina senegal bi ñu nekk bi ñu fi yëkkati mbirum góor jigéen ñépp la naqari woon dënn yépp jógoon na waaye ndekete yoo lu la të rek bàyyeel ak yàlla am na ndaw loo xam ne yàlla boole na ko ci ashaabul kahf yàlla mu ngi ñuy wax ci alquran euh, tudde ko aw saar aw saar ashaabu alkahf mu ngi tàmbalee alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa loo xam ne amut lim la wax ne la mooy moo amoon démb ak lii am tey soo ko boolee benn lay doon du amuk wuute du amuk rawante te it la cay dëgg rek lay tànn di ko wax mooy alquran alquran moomu moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglul ma wax la asxaabul kahfi yi ngay dégg mooy ñan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda dañu doon dund jamono ju mel ni suñ jamono kuy wax dëgg ñu ne day chantage walla day jaay fit wu dëgër walla daa bëgg a siiw rek tur bu nekk danañ ko ko wutal ba loolu tasaaroo ya ba nga xam ne kuy wax ay caaxaan moom dañ koy jox temps bu yaatu mu wax lu mu bëgg a wax ñu di ko baatareel xaalis waaye su dee tàmbalee wax wax ji xaw a metti tuuti yàlla nee na yàlla nee na ñu dar seeni nopp walla ñu toxal fañ koy wax ñooñu nag ba ñuy dund ci dëkk bu mel noonu ba mu yàgg dañ ne fii mënatuñu fay nekk nañ tuxu daal di génn dëkk ba dem seen yoon lu gudd la am na ñaar fukki aaya ak juróom ci saar woowu yoo xam ne ci mel noonu lay wax waaye daal pas-pas boobee ñoo ñu amoon ba ne lii naqari na ma mënuma ko fay jële naa tuxu feneen loolu tànn bu am solo la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ku gis loo xam ne noona soo ko mënee dindi sa loxo na nga ko dindi kooku mënu fee faagaa mënut a faagaagal góor jigéen ñëpp ñun ñi it mënuñu ko ndax am na dox suñu diggante ak moom gun am na dox suñu diggante ak moom gun waaye loolu jullit yépp la ko defal ndax ñooñu yàlla àtte woon na ba noppi ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallama faqtulul faaila wal mafuula te bokk yi ku lislaam rey ba noppi ñu bàyyi ko fi muy dund day mel ni ab néew bu ne ci kër ab néew su xëyee faatu balaa ñu bàyyi ko ci kër ga ba jant bi so bu ñu wëttuwut mu wàll leen mu reyaa la ñu bari su fekkee dafa faatu ci guddi gi ñu nañ ko fi bàyyi ba suba ba ca ngoon barkeeloo di ko barkeeloo mën naa yóbbaale ñu bari am na nu ñuy def mooy dañ koy daal di génn kër ga yóbbu ko feneen foo xam ne ña faatu ne moom moo fa nekk waaw lu tax lislaam ne nañ leen ba noppi ñu bàyyi yàlla na yàlla fay nguur soosu te fay ay kemam li tax ma ne dund amul njariñ def fi li nga war def moo am solo suñ demee ci alxuraan danañ ci fekk benn bi ngi ci suuratul xadiid mal xayaatu dunya illa mataaul xurur aaya bi ñu ngi tàmbalee i'lamu annama alxayaatu dunya laa'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fi l amwaali wal awlaad yàlla moo xam jaamam ne àdduna ji ngeen gis lu ci xoy xoy xoy lu fi waay yàgg yàgg day mujj rek ngeen a démb la woon walla ci suba la rek te fa ma mataahu alxayaati dunia fi l axirati illa qalil loolu mi ngi suratu tawba daal la cay teg ne illa tanfiru yuadibkum adaban aliman wa yastabdil qawman gayrakum wala tadruhu shay'a su fekkee lii xew mi ngi xew te du leen naqari du ngeen ci jëm dara yàlla dana leen yónnee mbugal mu metti moo xam ne da leen fiy jële mën na leen fa jële yéen ñépp benn mu doon jàngoro yoo xam ne kenn du xam nu mu tudd wala jàngoro joo xam ne dañ naan kenn mënu koo faj muy jël nit ñi par benn bañ jeex takk mu indi fi ñeneen ñoo xam ne ñoom li taxoon yàlla indi ñu fi te dañ ko fi def te nee na su boobaa loolu du wàññi yàlla dara ku ca mën a bokk bu fi jógee tam wàññiwut yàlla dara ndax yàlla yàgg na fi te kooku ñëwagutoon kooku dana dem lu yàgg yàlla nekk am na bëy duñ mokkaloon bu yàgg xawma ku ko way nag kooka dafa tënk àdduna sépp ak dundu mag ak ndaw ci yetti bayit dafa wax ne nasiru ila al ajali fi kulli saatin wa ayaamuna tutwa waxun na maraaxilu bis bu sëpp ñuy dox gën a jëm ci suñu digg suñu limi bis di wàññiku bis bu romb taxañ nañ ko te duñ ko tàqat ci wàll moo tax lu way war a def su fa su ko tegee ci alxuraan nee na yonent bi ne rek na gaaw def ko bu mu ci xalaat dara dal di teg ne wa ma aqbaxa tafrita fi zamani siba fa kayfa bihi wa shaybu fi rasi naazilu amut lu gën a bon nit doon gone suñ ko ne kaay wuy ji wooteeb suñu boroom mu ne damay xale saa su nekk nga dégg ñu ne ñun zone yi dem ba am fanweeri at ak juróom ñeent fukki at naan ñun zone yi kañ lay doon mag te li mag ñi xam lépp mu xam ko waaye day defe ne fi mu at yi mu toll du ati faatu te Serigne Souhaïbou bu naa ne ci téeréer bi mag day faatu gone di faatu ku dul mag di ndaw di faatu ku mag du ndaw mooy koo xam ne dañ koo jële ci biirum ndayam fekk mu faatu jutta gis jant bi yàlla mu ci mu sol nee na gone guy sàggane lu mu war a def moo yées ci li yàlla bindaguñ ci kaw suuf si waaye naka mag moo xam ne moom nag tàmbali tóor tóor tàmbalee ba jaww mu defee ni faatoogut ñu saxal ci noppam yàlla na nga fi yàgg rek mu di ko gëm naan amiin te defagul dara mu teg ci ne taraxal an dunya bi zaadin min attuqa fa umruka ayaamun tuaddu qalailu gaawal wan gannaaw adduna bala laa addunaa wan gannaaw kii adduna wan gannaaw mooy koo xam ne dem na ba yaramam fépp di metti dara safatut ci aw làmmiñam mëntuta mëntuta dox lu sori balaa jóg sonn balaa toog sonn mëntuta ay nalawam jeex spécialiste bu nekk ñu woo ko mu xool aw yaramam defal ko bilan dara bëgg a dund rek moo tax mooy da nga gaaw wan àdduna gannaaw ni nga wane àdduna gannaaw nag mooy xoy-xoy yim lay wan yépp nga xam ne ay nax la rek am na ñu ko jëkke woon te mu jëwuñ ko moo tax yàlla waxoon ci alxuraan nu ab jullit di mel ci mbir yu ni mel yàlla dafa wax ci alxuraan ku dem ci sootul fatxi da nga ko ci fekk muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau daa war doon koo xam ne yéefar bu taseeg moom ragal ko ci melokaanam ci jëmm ji ni muy mel ni mu koy defare te bu séqeek moom xam ne kii jullit dëgg la am na ku doon wax ak ay nit ca réewi tubaab ya nekk su ma xamutoon lislaam door a xam jullit yi dana doy waar lool waaye dama xam lislaam lépp door a xam jullit yi nag moo tax jaaxalul ma waaye xam jullit yi lislaam dana ma jaaxal loolu jullit bu nekk war naa moytu ñi koy tàmbalee ci moom di ko xoolee ci moom moo tax mbir yu ne mel dañ koo war siiwal kañ ko waaye du neex deret nag ndax ki nga xam ne moom la waa adduna sépp yaakaar ku jaaxle ci wàllu ku la sonal nar laa xiixan moom ngay woy ca biir këram la sikkiñ a lakkandooye ñu am ca kersa lool moo tax ñu ànd ak ñoom ñépp dañoo rus fii mu nekk te mbokk yi bu yëggul rek lañ fi wax ne senegal gi wóoratut ndax mënuñoo yor seen kaaraange ndekete yoo booba yàlla moom noppi na nar na leen leen toroxal digg bëccëgum dara kàmb ñépp yëg ko moo tax dañ caa teg tànk ne xiim te doon nañ ko fi waxtaane saa su nekk suñ tuddee baat bi nga bëgg a tudd léegi ku ko tudd ñu woola muy jihaad tàppet yépp naan jihaad jeex na ndax sëriñ bi moom jëlee na ko fi laa xawla wala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax lan bëgg jàmm rek bëgg jàmm dong bëgg jàmm nag bokk yi taxu ko taxu ko am alxuraan nee nañu nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci suuratu tawba ak suuratul anfaal yi muy traité yu bare bare ci nuy jëflanteeg yéefar yi wa innaka euh, dafa jëkk wax ne ab jullit mën naa dëkk ak kudul ab jullit ci kaw ay sart su fekkee kim dëkkal te du jullit doonte ci am réewam la nekk xëñu ko doxul digganteem ak diineem jéemu caa dox jéemu ko bundu xatal ci dara nee na su boobaa jullit bi am na lu ko war digganteem ak dëkkandam jooju waaye su fekkee daf ko nar a bundu nag day gëm ne suuf sépp yàllaa ko moom nit ñee ko wutal fi muy tàmbaleeg fi muy yépp waaye suuf su nekk ma ne fi jant bi fenk ko sooy rek ma ne dafaa jaamoo yàlla laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilakum fi ddin wa lam yuxrijukum innama yanhaakum allahu an allazina qaatalukum fi ddiini wa axrajukum min diyaarikum wa daaharu ala ixraajikum an tawallawhum am fa muy waxee ne wa in nakasuu aymanahum min baadi ahdihim wa taanu fi diinikum fa qaatilu aimmata alkufr aimmata alkufr ni ko ña ca alxuraan jublu woon juróom lañ te bokk yi nee nañ juróom yi ëpp doole ci kaw suuf réew yi ëpp doole ci kaw suuf lim nañ sa juróomi réew mbaaru ñooñu ñoo ñëwaat tudd nañ ca abu jahlin tudd ca umayat bnu xalaf tudd ca utbatu bnu rabia tudd ca abu sufyaan bnu xarb tudd ca suhayl bnu amr fa qaatilu aimat al kufr innahum la aymana lahum laallahum yantahuun ñu bàyyi la ñuy def alaa tuqaatiluuna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ixraaji rasuli wa hum badaukum awwala marra ataxshawnahum fallaahu axaqu an taxshaw in kuntum muminin daal di joxe ndigal qaatiluuhum yuadibhum allahu bi aydikum na ngeen jëflante ak ñoom bañ tàmbalee mos mbugal ma leen yàlla di teg ci seen loxo yéen jullit yi wa yansurkum wa yuxzihim alayhim wa yashfi sudura qawmin muminina wa yudhib gayta qulubihim kon euh, nguur soosu def loolu jullit yépp la ko defal dund gu gàtt nag la am ci ay at waaye aw turam duutu fi jóge ndax bokk yi junju naa ko léegi ku faatu wolof yi sax daawuñ ko jaar la ci buntu kër gi dañ koy bëttal ndax lan benn bañ waa kër gi gis ko ñaareel ba it nee nañ boo ko jaaralee ci buntu kër bi day daal di day daal di taamala bu dee kër goo xam ne dañoo njig jigéen dolli ca danañ fa jaarale ñu bari balaa yàgg moo tax dañuy bëtt ma ca gannaaw jël ko duñ ko jaarale ci buntu ñu jógee ci armeel ya bu ñu ñëwee dañu leen tegal ndox ci bunt ba ñu raxasu ndax bala ñoo bala ñoo wàll dee gi kenn wala armeel ya ci buntu nga dégg ñu daan wax ne garab gu ñuy lekk sax bu saxee ci armel bu ko bu ca genn gone dagg benn doom di ko ëndi ci kër gi ndax garab goy law kenn du ko wàllaate bu dee sump fa lañ koy bay su dee gang fa lañ koy bay su dee dimb waxaale wuñ ko caxat moom mi nga xam day law moom nee nañ ku ko indi ci kër gi déegi day law di wàll nit te déedéet ku war a dem rek mooy dem ak na muy demee waaye buy ñëw yàlla nañu fekk ci lu neex yàlla ak loo xam ne bu ñu ko nettalee suñuy bokk duñ ca am kersa bari kenn du bëgg ñu ne mbokkam la woon kenn du bëgg ñu ne ab xaritam la woon ndax nam si nekkee woon moo tax bañ nañ ko ba bu ñuy seere sax kuñ ne sànnil ay kàddu mu ne déedéet xanaa diw kay ndax bëgguta wax nam deme te jàpp na ne armeel yi moom lañ fa war a wax rek lañ fay wax soo demee ci réewu Afrique yi am na si yoo xam ne doonuñu sax ñu am diine waaye lañuy def mën naa jàjj ab jullit ndax am na ci seen dëj ñoo xam ne bu nit faatoo ba ñu yóbbu ko ci armeel ba di ko ba di ko suul dañuy def ab liste lu waay xam ci moom ci lu baax ñëw wax ko waaye lu waay xam ci moom ci lu bon ñëw wax ko buñ noppee nag kay jéggal a jéggal ko nee na ñeey mu jeex loolu nag jullit yi war nañu ko xewal dana jàjj ñu bari ba yu baax yi ñuy waxal nit bu fi bàyyi ko rek benn muy boroomu juddu wala bu doon borom ak ndomb tànk di daal di nekk wàlli déedéet bokk yi yàlla naa ne ku faatu kumpaam dañ ñun ñoo ci xamu dara waaye am na ña nga leen taxaw di leen seereel te fekk ñu ngi ñu jéppi lool naan xaw ma ne diw nii la may taxaw su ko defee ñëpp daal di bëgg seere yu baax te mën naa ba ñu doon dëgg bokk yi ñoo ñu waaj rey am na ci réew mi ñoo xam ne seeni bokk bokk na ci bokk doon na ko waaye dañ koy suturaal duñ ca jéem lenn waaye su mbir mi amoon Sénégal tey kenn du fi dégg nga dégg ñi wax droit de l'homme waaw droit de l'homme yi gone yooyu ma jëkkoon a tudd dañu jëkk Afrique du Sud lu wax ci ñoom xanaa tubaab ba leen rey rek moo tax waxuñ ci dara waaye bu leen nit ñi ñu reyoon coow laa ngi bëgg a rey nit waaye droit de l'homme yooyu itam dafa am lu ci lu ci mataleeral du ñoom droit ñi ñuy xeexal mooy képp ku dox jëm ci lu baax rek ñu dox sa diggante ak moom su dee ku nekk ci caa ci caaxaan ñu fexe nu mu ca tooge droit de l'homme sëg ab àttekat ak boroom ndomb ak ñépp nañ xam ne bis ngi ñëw boo xam ne euh, kuñ reyut tit day dee man la yamut bi sayfi maata bi gayrihi euh, ni ñuy faatoo moo wuute rek waaye dee dee la rek waaye bokk yi nañ bàyyi xel tër boobu nga xam ne danañ ko tëral ñépp ñii ñu teg leen ci aw dénk ñu ne ñaw tàlli ñareet weñ ñi dal ci seen bët yi duñ ko mën a dàq muy dañ ci seeni tuñ duñ ko mën a làq dàq buñ leen gëmmalut dañ daan xaj di xoole rek te duñ gis dara ku bàyyi xel na bis bis danañu ñu takk la teg foofu looy dugg danga ko xam looy wax danga ko xam moo tax ka waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ay wax ba yonent bi àtte ne ku ko gis nanga ko defal xéewal ba muy tagg ba agsi ci ay bayit daf caa wax tawxid di wér fa qultu xallu sabili la aban lakum fa kullu ma qadar rahmaanu mafulu daal di wax ba ne kullu bni unfa kullu bni unfa wa in taalat salaamatuhu yowman ala alatin xadabaau am kuy kañ di kañ saaba yi yi àndoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ne ñi ci faatu ci ay xare ñépp soo demoon di seet fu ñu leen jam duñ leen jam ci ginnaaw fekk dañ doon daw déedéet waaye ñii ci ay dënn lañ leen jam ñii ñu jëm ci biir te fekk ñi ngi jàkkaarloo ak noonu yàlla gi laa yaqaau taamu illa fi nuxurihim wa ma lahum an xiyaadi almawti tahlilu kon bokk yi xew-xew yu ne mel jullit yi war nañ caa def ay feet def ca ay cant ndax atte su dee fardu kifaaya yit fardu kifaaya moo gën a garaw fuuf fardu ayn fardu ayn niñ koy jàngale mooy par kenn lañuy àtte ku ko defut lu tax daawut julli lu tax daawut woote amul ngànt lu tax nangam lu tax nangam waaye nag bu dee fardu kifaaya la ñu ne ñii dañ koy def mu wàcc ci des su ko ñëpp defut mu teg leen bàkkaar misaal nañ ko ay yoon mooy tey ñun ñëpp suñ kër yi ci Sénégal kër gu nekk dana am ku xëy ñu jox ko tuuti as ci as xaalis mi ngi aju ci kanam ko ma ne mu dem wuti lu mu togg loolu mooy fardu kifaaya ñépp la demal mu ñëw defar ko ba nit man caa dugal loxoom def ci gémmiñam waaye bokk yi su boobaa bu ñuy di def ci gémmiñ yi kenn ku ne ku mu fay nekkal boppam loolu mooy fardu ayn mënees naa tibb sexal la nag waaye sax xamee ko wan na ko moom kenn mënalu ko kenn donte mënees naa sax xamee gone gu am guti gëj waaye gannaaw àtte fard kifaaya la ñim tegu ci seeni loxo nañ ragal yàlla te xam ne alaysa alaysa allahu bi ahkamil haakimiina aha kay lu way àtte fii di daganal ak araamal te du suñu boroom yàlla dana ko teg foo xam ne ñépp dañ koy séen yàlla di ko laaj muy wax ca kaw te alxuraan nee na su boobaa yàlla du laaj làmmiñ di wax déedéet al yawma bis dina ñëw naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum dañuy taf gémmiñ yi cër yi la yàlla di laaj ñuy wax kenn ku ci nekk wax lam defoon bu bëggee xuloo ak cëram naan leen waaw yéen a def yéen a may def ni tey wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin wa huwa xalaqakum awala maratin wa ilayhi turjaun wa ma kuntum tastatiruuna an yashhada alaykum samcukum wala absaarukum wala juluudukum walakin danantum an allaha laa yaclamu kathiran mimma tacmaluun ah, wa dalikum zannukum alladi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbaxtum min alxaasirina yar nañ ci yàlla kon xew-xew yu ne mel euh, jàkk am na lu mu ci wax war a wax jullit yi mooy gonet jullit gu def njàmbaar guy toll war naa siiw ni xisas yooyu am ci Muhammad Ali mi doon junji keroog amee bëgg ko tudd am mbedd mu ne leen du ma du mu duñu ma tudde mbedd moo xam ne yéefar yi dañ ciy dox te fekk Muhammad la mbedd mi tudd bëgg koo takkal dara mu ne déedéet lii li ci nekk Muhammad du ko takk loolu nag junjoon nañ ko keroog ñu ngi koy fàttali ci xew-xew bu ne mel saa su nekk jullit bu nekk daa war a xool boppam ci yu ne mel fi muy dugg ci mu xool tur yu mu tudd moom wala sant yu mu sant wala ñi muy tuddoo naan la bokk ba xam ñooñu war nañoo dugg foofa wala waruñu fa dugg ak bu faj jotee ndax moom war naa faj wala warta faj yàlla na dégg ak topp te nangul nu suñuy koor te musal ñu ci seytaane ki pakkam te yàlla may ñu ñu àggale koor gi jàmm ndax am nañu ko fekkee woon daaw dugg nañ ci tuñ ko àggale yàlla nañu ko yàlla may ñooñu du seenu yaafus du seenu yàkkamtee dem waaye ñun yàlla nañu yàlla may ñu àggale ko ci jàmm te suñu borom nangu te ñu fekke ko ay ati at yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin Touba quincaillerie générale mu ngi fii ci cité Kër Damel bu dee dangeen ngeen yittewoo lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi ñëw leen fii Touba Quincaillerie Générale mën ngeen leen a seeti tamit ca 84 ak ca 65 rue Ngalandou Diouf